juróom ñetti pàcc la kuréel bi boole meeru Sénégal yi di AMS yëkkati ci càkkuteef yooyu mun nañ ci jàpp li jëm ci wàllum autoservice yi maire yi war a am insisté na ci mbiru oto yi muy am solo maire dafa yori service oto maire mooy ambulance commune bi mooy ku ci am soxla ci commune bi ci oto maire ngay dem donc te léegi ñun loolu dafa nekk soxla bu tar ba nga xamante ne mënuñu am service bu toll ni mairie ci commune bu vingt cinq trente mille habitants te service boobu yorewul oto. dem nañ sax ba tudd du du du du tuuti ba tudd ay maire yoo xam ne ci moto Jakarta la ñuy déplacé maire daa war a am passeport diplomatique waaye itamit war nañ ko jox walla ci lu jëm ci projet cent mille logements yi. waxtaan ak président de la république bi daal moom la ñuy laaj ñeenteel bi ñu dugal ay nitu AMS maanaam ay maire ci ñuy wax équipe yi nas projet yi ak programme yi ci ministère yi ñu jël ay maire di ci yebal. ndax ñun constaté nañ ne duñ cay nekk day tax ba bu ñuy nas li ñuy wax composante maanaam pàcc projet yi daanaka doo daf ci am pàcc yoo xam ne ci mairie la jëm ak nañ jogote waaye kenn du ko feeñal waaye buñ fa doon nekk loolu dina mën a am beneen tomb mooy affaire ñu jël am na programme bu ñuy wax cent mille logements xam ne pour nga am logement ci lu jàppandi dina baax. impliqué maire ci répartition bi ak gestion bi baa ñu amal ko seen. mu ngo mu ngo maanaam programme cent mille logements maire yi la ñuy laaj d' ay assiettes gox boo bi lañ laaj suuf pour programme bi def fa nangami kër pour askan wi néew doole ñu ne bu ñu koy séddale maire yi dañ ciy war a bokk maanaam fi ñuy waxtaanee ci lu jëm ca loolu si du loolu seeni nit seeni njaboot ñu gis ni itamit que yi dañoo war a am ci koppar bi nga xamante ni moo jóge ci wàllum service public de ci communes yi. kon ci patrimoine commune yi ci la ñuy liggéey kon xanaa kon lay génnee ca lool am na lu ca war a dikk ci gafaga mairie te loolu amul benn euh, euh, mëtuwaay bu am pour loolu ñu bëggoon ñu toog waxtaane ko ci li ñuy déggoo. mu am matuwaay yoo xam ne dugg na ci cadre yi xam ne may na koppar dugg ci keesu mairie ngir itamit ñoŋal secteur boobu ñu ngi ñaan njiitu réew mi ngir ñu mën a amal ci at bi ñaari ndaje ngir waxtaane lépp li jëm ci secteur boobu di sàkku ci candidat yi wara dem ci élection présidentielle yi ab audition ci lu ñeel commune yi kàddu yooyu nekk ay ñaxtu yi jóge ci lël bi ñu amaloon ci weeru novembre bi ñu génn